di wax ne rek euh, ñëw nañ fo xam légui léegi ñu ngi wax ne que examen yi commencé na bi ñuy lancé bi ñu ne ñu ngi def reprise le 25 suñu objectif mo ne kon moy nan lañu fexé ba mëna organiser examen yi euh wax dëgg yalla tay fiñu toll mun naa wax parents yi niñ ko défé woon le 25 ba sen doom yi mën am courage ñëw ci école yi ñu aar leen foofu encadre leen jox leen ay enseignement yu am solo légui nak paré nañu aussi la même condition que ñom ñu mëna def examen lolu nak ñaari élément la ben walu pédagogie la lolu moy suñu liggéey suñu métier également sécurité si sécurité ak sécurisation li ñu doon jël comme lu ay masque ay flash ay amna ba d'ailleurs jël nañu sax disposition ñu ngi encore pour que ñu mëna compléter et également suñu sujet yi depuis donc nous sax mu trois jours depuis le 10 on naa wax ne fii si Sénégal amul benn centre un xam ne benn inspecteur d'académie ou IF, inspecteur d'éducation formation de formation. yu mag yooyu qui xam ne sujet donc c'est la pédagogie loolu la moo am et wàllu également euh, organisation bi mun naa ne que euh, il faut que parents yi xam que pare nañu ñun nous défendons le 25 nous lañ koy aussi ceci est l'année, Inch'Allah nous avons organisé organiser ñetti examens yépp dans de bonnes conditions suis CFE moy BFM moy baccalauréat Je vous leen remercier